bay nag dem na ba si baat baat ne ko on fait de la politique on fait de la politique certes quoi mais politique dëmb boobu xëy na quoi ça fait très mal ñu jàpp sa frère jiñ ko loo xam ne amul Baynag ñun xam nañ ko man duma ñun duñu ànd ak kuy tooñ ñun duñ tooñ ñun duñ tooñ duñ fen kenn parce que mënuñu woote nitu dëgg ba noppi naan dañuy taal ay kër jàmbur lan lay Baynag nan lay taalee kër jàmbur donc lu ak lu mën a am ñun loolu daf ñu metti woon bëggoon nañ bëggoon nañu wax trop trop trop s'il s'agit je pense que Sénégal yëpp lañu arrêté ñun bu ñu génnee si kaso bi les gens nous disent massa massa leen coono mais man damay wax ñun ñun ñoo leen war a massa wu coono yéen le peuple sénégalais parce que Macky Sall ñëpp la sonal ñëpp la tëj kaso mais c'est normal parce que yaa cinq ou six ans de cela ñun toogoon nañ ci micro yi di wax di yuuxu pour sénégalais yi dégluñu que Macky Sall mi ngi tooñ tooñ bu méttee métti benn nitu yàlla bu tudd imam Alioune Badara Ndao mu jàpp ko tëj ko en prison ñetti atu yàlla ñu yëñ ko terroriste presse yi tey presse yëpp presse écrite bi bu ñu xëyee di revue de presse imam bi fekk nañ ay ci moom ay portable satellitaire imam bi fekk nañ dafa yor ay terrain d' entraînement fekk nañ ci moom ay armes ay même Jeune Afrique sax da doon bind ci loolu imam bi 4 du matin lañ ko fekk këram du ma jug ci di ko di ko di ko répété 4 heures du matin tas seng yi mënute ko di tuur saaku ceeb bi xam lan lañ doon seet mënute imam bi ci kanamu njabootam plus de ay 2000 ndongo xale yi di jooy ñu takk imam bi ñetti at la toog gisul njabootam ma toog wax naa ko fu nekk si bu leen bëggee xam dafa leen vaar ngeen xool vidéo yi ma ni Sénégal Macky Sall ngi jàpp Imam Ndao parce que nee na da ko te xeex terrorisme kon suñu tur la koy jàppee ñun ñooy fay juge yi ñooy fay Macky suñu tur la ko jàppee mi ngi toroxale imam bi Sénégal yëpp di seetaan terroriste la ji ñoon ñëpp ji ñoon leen terroriste jaakatu jëni terroriste lañu journaliste yi terroriste lañu jaakatu caafi terroriste lañu sëñ ñëpp nekk nañ terroriste parce que nit yàlla lañ tooñ te nit yàlla bu ñu ko tooñee bu askan wi jugul liy dal ci ñëpp lay dal yàlla buy dóor moom ñii day nekk natt ci ñoom ñii mu nekk mbugal ci ñoom moo tax affaire imam Ndao moo tax man ma waxoon ni lii ñu bett Macky mu mujjee fi ak sénégalais yi donc moo tax arrestation booy cité ay tour sax di wax naan dañu arrêté Thierno Sall suñu frère la nitu dëgg la leader la boo ne Ousmane saar yàgg nañ ko arrêté Thierno Sall yàgg nañ ko arrêté nga ni bay Bayna Gueye nga ni Mansour Diop ak lu mën a am en réalité après di ñeneen pour wax nag si euh, fi may daan ci détenu yi ci maman Amidia parce que maman Amidia man personnellement man dama ko seeti woon parce que ñun bi ñu defee 4 mois de prison man dama génnaat prison bi ñu génnee ñun man dama seeti maman Amidia dem foofu jóge fa après man dama dem prison seeti ko dem seeti maman Amidia quoi. ku nekk Sénégal dañu leen di fàttali lan moo waral arrestation maman Amidia 50 000 francs lañ ko envoyé wave bi ñu ko envoyé 50 000 francs yi mu koy envoyé beneen booy Pastef loolu lañ ko jàppee ni ko financement terrorisme maman Amidia def na 2 ans ci prison bi ñaari atu yàlla. jigéen bu am ay doom jigéen ak ni mu mel ko force spéciale ku ne xam nga luy force spéciale ñu tëj ko ci kaso bi maa amee ja def na deux ans damay nekk ci prison bi ñoo man non Karim da ngeen yàgg ci prison bi man ne su ma xalaatee maa amee ja rek di añ di ma maa amee ja nekk ci kaso bi quoi ay Sonko ñoo xam dañuy sacrifice seen laaj pour Sénégal nekk ci kaso bi yow nga nekk ci dëkk bi xàpp yi man yooyu wax may sonal doo mën a nelaw sax tey même pas dormir parce que gor gu nekk gor nga parce que nit waroon nangu li ngeen bokk ñu bokk ñun ñëpp nit di ci xeex ba ëppal rek ci quoi waroo ko nangu loolu bokk na li ñu doon souligner di wax Macky Sall ne ko mu bàyyi maman Amy Dia balaa muy dee bu dee si ay loxoom dara du ko ci génne dara du ko ci génne dara ndax ñi ñu war a jàpp mooy sàcc yi les voleurs ñuy détourner fonds public bi ñuy sàcc àllu réew mi ñuy nax sénégalais yi anytime taxaw ci télé bi di wax keroog gis ngeen ko yéen journalistes yi ministre de la justice dafa taxaw jàkkaarloo yéen di fenn fenn yu leer nañ daan ne Absa Absa comment Absa non Absa journaliste Seneweb bi ab sa an ne policiers yi dóoruñ ko lu ne fàng nga ne amul loolu insulte la ci peuple bi nga wax cest à ñoom dañ dem ba en réalité xam nga mooy nga taxaw di fen ñi ngay wax ñi ngay waxal xam ne da ngay fen nga dem ba xam ne yow nga xam ne yow da ngay fen mais nga di loolu en yow nekkatul nit loolu leneen la du affaire nit donc yooyu ñun ñoo ko war a mën a xeex mu dañ te ni ñu koy xeex mooy il faut ñu taxaw parce que benn instant ma dama senti Sénégal yi di xaw dellu ginnaaw tuuti te xeex bi foog ñu taxaw si ferme rek duñ ci donc loolu daal laa bëggoon wax si détenu politique yi léegi damay ñëw si beneen bi mooy dialogue bi parce que je pense que ay points yu ma énuméré vite fait rek euh, kii ni mu waxee en français dama ko def sama kiiw bopp quoi en réalité dialogue dialogue bi man li ma wax si dialogue dialogue dialogue national la mais tour de famille la quoi en réalité du dialogue mais li ma si expliqué c'est très man ñaar laa ci déplorer bi jiitu mooy d'abord mën naa juum mais dama jàpp ni en réalité opposition bi dañu waroon dem si dialogue bi dañu waroon imposer Macky Sall forme dialogue naka la ñuy dialogué maanaam Sénégal actuellement amatul président il faut gars yi bàyyi ay non le 2 avril du 2 avril cest dire day officiel rek quoi le 2 avril mais élection présidentielle bu xasee bu ibbeeku rek Sénégal signature yëpp la ñu war a bloqué dara doxatul Sénégal amatul président actuellement Sénégal amatul président kon ni mu waxee ex ex Pastef noonu la ñuy waxee ex président Macky Sall n'est plus président donc yow mënoo nekkatoo président ngay taxaw sari ngay taxaw yow di imposer nit ñi ay forme de dialogue parce que dialogue ñi koy def. mooy ñi déggoowul moom ñi fa nekkoon wuy ji ko yëpp dañoo déggoo di ñooñu li ñuy dialogué amuñu problème réeroo wuñu lan la ñuy dialogué foofu alors opposition bi dañu waroon imposer Macky Sall forme de dialogue ne ko nii lay demee nii lay demee man dama gëmoon Macky Sall dafa waroon toog ci publicu dialogue bi il n'est plus président du Sénégal maag mooma yem dafa waroon toog ci publicu dialogue bi ñu dem jëli man loolu laa doon proposé ñu dem jëli évêque bi évêque bi yónnee benn kilifa ci église bi mu taxa yónnee benn kilifa ci Touba sëñ may mbay si maas même chose jàngu bi bois sacré bi ñoom ñëpp ñu toog ci table bi teg ay points yu énuméré Macky Sall taxaw fi ñu ñu di ñaxtu di expliquer li ñu bëgg ci dialogue mu taxaw foofu noonu parce que Sénégal Macky ko moom quoi taxaw bëgg nekk président mandaam jëf mu ne day nekk président loolu mënul nekk ñun duñu ko accepté léegi nag Macky Sall ñun li ñu dal dañ ko bàyyi xew mi quoi par exemple dañ ko bàyyi xew mi ngénte gi lañ ko bàyyal yàq na laax yi xajamal na genn wàll ci soow mi laax yi def jox na ko ay mbokkam ci ngénte gi ceebu yàpp bi añ bi yàq na ko léegi reer bi des mu ne ñu ñu dara ko bàyyi ak reer bi loolu c'est pas normal parce que li des ci Macky Sall mooy li mu fi ndara bàyyi nan la ko fi bàyyee loolu c'est très important ñu bàyyi ko xel parce que dialogue certes amul musul woote dialogue ci àdduna mi ngi soo ko wootee dialogue mooy bi mu waree dem parce que dialogue moom échec lay wone parce que Sénégal dafa am ay texte dañu am constitution moom ay texte yoo xam dafa leer bien rédigé point A jëm à Z ñëpp xam lii lii la texte yi di wax kon bu ñu demee ba ñàkk respecté texte yi tax ba léegi chaque fois problème dialogue moo koy réglé rek mooy kon yow da échec mooy accepté ngi da échec léegi nag ñi bëgg ñoo waroon teg yan la ñuy dialoguee lii lii bëgg si dialogue bi moom day taxaw si public bi parce que Sénégal yi ba tey la dafa am programme am agenda di ko déroulé te chaque fois Sénégalais yi dañuy nelaw Macky Sall day réussir parce que dafa moom moom bu nekkee si tey yéen ngeen nekk si tey di wax fekk moom mi ngi si suba pare na moom instant yi dépassé na sax mi ngi si beneen level bokk naa si ñuy gëm ni Macky Sall du bàyyi nguur gi du def du teg ay élection lu ma gëm la xaw ma nag luy am yàlla moo xam su ko defee dina ma bett parce que le pouvoir rend fou mais le fou ne rend pas le pouvoir il rend pouvoir du ko joxe te loolu il faut gars yi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax sénégalais mettre ko xam ne ko on t'a à l'œil parce que ku bëri caaxaan la te ñëpp nañ gis nañ kaawu Alassane Ouattara gis nañ ah, ah, gis nañ Alassane Ouattara parce que sénégalais yi bu ñu yàggee dañuy dem dañuy découragé croiser les bras après dootuñu sawarati si si élection yi négligé bàyyi ko comme ni ñu boycotté dialogue bi boycotté leneen boycotté leneen day kon ni demeurer fi di nekk di nekk président ba faw te bu ñu ci dugg mënu nekk parce que Macky Sall li mu fi gàddu ci àq dafa bari li fi def ci toj-toj dafa bari dama ñëw si sànq benn point boo xam ni euh, suñu mbokku Blaise en tant que chrétien si mouvement Nittu Dëgg moom bi en prison bi ma nekk en prison l' église catholique bi njëkk am soi-disant dialogue bi njëkkam prison la ma fekk mooy bi Ahmed Khalifa Niass taxaw di wax naan ko gëmmal dóor sëñ nu mu tudd euh, ki nekk fas Fass Seydi Djamil nekk fa di théâtre naan damaa cëpp na cëpp tëbat ñuy théâtral Macky Sall en réalité te boo leen seetloo dañ ne bi ñuy commencé dialogue bi dañ ne les hommes religieux d'abord ñooy njëkk ibbi ñaan ñooy njëkk wax pour te dire la religion est très importante lu ñuy foowee ñun diine rek moo ñu ñor ñun lu dul diine diine ko ñun les musulmans ñi ñu fa représenté ñun soi-disant ñi ñu fa représenté ñun Ahmed Khalifa Niass la woon ak Sidi Jamil Ahmed Khalifa Niass nekk fa ay gëmal dóor Sidi Jamil wax damaa cëpp fii ne waat cëpp dalaat fee dalaat fii teg ñu gàcce quoi teg gàcce suñu diine bi te il faut ñu taxaw foofu point boobu il faut ñu taxaw fa parce que Sénégal tamit il faut mu am ñu wax ñu waxante dëgg xoolante ci bët ñu waxante dëgg quoi église catholique bi ñu demee taxaw foofu ah protestants yi ñoo fa nekkoon seen discours man Abdou Karim Gueye je suis mais wallahi al azim gëj naa dégg gëj naa dégg man ci gémminu ñii woote woo musulman fii di woote ay kilifa diine wala si kanam Macky Sall ah waxu yoon ci Àlla Mohamed man yoon ci Àlla Mohamed maa ngi koy gis ci chrétiens yi man koy gis ci évêque bi maa ngi koy gis ci protestant yi il faut aussi avoir le ñun musulman Sénégal yi ah yi dañoo rawee lu bari li ñu rawee xam nga la mooy chrétiens yi bàyyiwuñu seen doom ak tubaab yi école catholique boo dem église baa si wetam dañuy jàngal booy yi ñoom jàngal seen doom yi catéchisme di leen toppatoo bàyyiwuñu seen doom ak tubaab yi ñun suñu religion musulman yi ñun ñun toppatoowuñu si dara on a des sérieux problèmes pour mën a sax fexe faye suñu doom pour mu dem jàngi euh, euh, euh, franco arabe boo xam ne somme bi amul benn subvention bu état def ci loolu amul dara def ci diine bi les chrétiens se sont ba ñoom seen i doom bàyyi ñoo nekk tubaab yar leen gis ngeen fii ñëpp a koy wax naan tubaab yi boo daan seetloo chrétiens yi ni ñu mel dañu yaru duñu wax ci kaw en fait en réalité ñoom dañu yar seen doom ci seen diine te ñun nekkuñu ay jullit ñun kenn gënu yoon ci almaay moo du la gën mais problème bi mooy ñun dañoo yaru suñu doom suñuy kilifa dañ fi nekk seetaan diine bi croiser les bras yemale ko ci seen i kër on n'a rien fait pour diine bi dugg ci école yi dugg ci institution yi diine bi dugg ci béréb yoo xamante ne mooy tax ba tey état bi am si àq ak wareef ak yelleef mun ñu nekk majorité ba noppi di cotiser ci contribuable bi te ñun suñu religion mënuñ ci gis sunu bopp loolu moo taral mooy feeñ ci ñun mooy feeñ ci suñu doom yi ñu dàq fen ci fii i sab ay musulman la ñu woote woo ñi fi gën a ñeme yàlla toog ci politique bi di wax naka su doon ay la ñu woote woo dañ koy woote woo mais ils sont pas mais chrétiens ñoom ils sont des dañoo nekk ay catholiques mais nekk ñu ay jullit moo tax ñoom ñu gën ñu nekk nit parce que religion moom ko topp dangay nekk nit donc moo tax ñu bëri ñu ngi expliqué di wax di dingat di expliqué naa non euh, ma dégg Moussa Diakhaté li mu wax laa fa parce que maa ngi dégg euh, Blaise di ko wax léegi di ko souligner Moussa Diakhaté moom man li ma am pour wax ko rek mooy sa à dire dafa dafa xam genre nit yoo xamante ni kenn waru jox parole gàcce la dafa am ñoo xam ay gàcce lañ gàcce Moussa Diakhaté euh, su ma waxee baat bi dañuy foog dama saaga mais du saaga imbécile feebar la feebaru xel la mooy ñooñ di màgg te seen xel yi màggul loolu mooy imbécile non imbécile feebar la mais Sénégal dañu jàpp ne saaga la du saaga feebar la quoi dafa am ñoo xam ni dañuy màgg mais seen xel du màgg Moussa Diakhaté xelam màggul te Macky Sall la ko dàq ci parlement bi jëlaatuñ ko def ko dara amul benn responsabilité ci réew mi nekkul dara lu dul benn kenn koo xamante ni Marème Faye Sall moo koy gidee di ko télé gidee di ko wax lan lay def foofu la loolu la nekk après toog di taxaw di saaga kilifa diine jàmbur à chaque fois dama koy wax respecté leen ngëm-ngëmu jàmbur yi communauté chrétienne bi suñu wax dara lu aay amul sañ-sañu taxaw di di di wax loolu xalif généraux yi naan di traité xalif généraux yi d'hypocrite mu dem ci ku toll monseigneur bi di ko traité hypocrite fan la ko teg xam ne loolu lan la mën def fii dañ ci réew mi a Diakhaté lan la ban njëriñ la amal Sénégal bay saaga diine jàmbur Sénégal moom diineem ne moom ay waajuram ñoo gën waajur yoon Thial Mohamed donc kon moom bu saagaal catholique yi ñu nañ xam ni kon moom mooy imbécile bi mooy ñëwaat rek quoi du nitu dara tekkiwul dara amul benn njëriñ Sénégal dañ ko war a stoppé war arrêté te damay wax communauté chrétienne bi ñu porté ko plainte bu taxawee di saaga kilifa catholique dañ ko war a porté plainte procureur bu autosaisi wul ñu porté ko plainte tëj ko ci kaso bi moom moom moo mérité kaso yi ñuy tëdd ñun alors je pense que euh, li may wax si dialogue bi vite fait après dialogue bi li may daanalee si dialogue bi rek mooy euh, presse sénégalaise bi Macky Sall dafa wax ni ne ne presse internationale bi ñoo koy ñoo koy yàpp ñoo koy ñoo koy ñoo koy diaboliser et tout mais man j'ai dit une chose est claire ah Macky Sall musul respecter presse sénégalaise ndax vous vous rappelez yéen Macky Sall bi muy soog chaque fois buy wax français lay wax yee wala presse internationale lay jël di wax xanaa tey tey comme ils l'ont lâché comme un chien dañ ko bàyyi comme xaj moo tax mu taxaw ne mu taxaw naan ay euh, presse sénégalaise presse internationale dañ koy diaboliser parce que àndatuñu ak moom moom moo fay mission mais c'est tout à fait normal c'est la logique des choses parce que Macky Sall mënul def li ñu fi def yëpp après après toroxal imaam yi tëj ay imaam ñi ñi di dee ñi ñi dem si gaal yi di dee ñuy rey ay ni plus de 30 personnes après yow nga bëgg ci génn noonu naagis kon cest à ko que ñun suñu kurisi ak suñu jaamu yàlla yi sax kon ñun kon leerul alors ñu ma ñëw si si euh, beneen point bi mooy amnistie bi en parlant de l'amnistie man damay wax gars yi souvent ils expliquent ku ne di wax quoi mais man amnistie bi man ko quoi xamul nga amnistie loi rek amnistie loi la dañ koy voté mu dem mais ñu dem voté waat beneen loi dindi ko yaa quoi même fu mu nekk ci na ñu loxoti ko indi parce que tous les dictateurs du monde mais teg nañ amnistie avant ñu dem ay Hissène Habré yi tegoon nañ amnistie voté woon amnistie ñoom ñëpp defoon nañ ko après fu ñu mujj amnistie ça dépend ci parlement bi nan lay mel ñu xam ne fi ñu dëlmal Sénégal ci parlement bi ñu jëm nii nan la war a mel ñu am ay député digne de leur nom nekk ay député yu digne de xam lan lañ war a xeexal askan wi man loolu laa gëm donc jarul polémique jarul coow lu bari ay du ñëpp xam nañu Ousmane Sonko n'est pas demandeur man ci kaso bi laa nekk ci pouvoir bi 50 ans ñun nañ nekk ci kaso bi 50 ans bu fekkee dafa war a nekk comme buur ñun nañ dee ci kaso bi wala ñu dee ci li mais on jamais avec Macky Sall parce que bëgg nañ yomal xeex bu ñu yeewoo ah suñu borom sant ko ci ki demoon Charlie Hebdo ne xeex nañ ko ba ñëpp yëg ko sant ko ci ki ki woon la sant ko sant bu baax a baax ci ku jël Sidiki Kaba bi muy soog a faru la jël Sidiki droit de l'homme buy defaan homosexuel mu jël ko def ko ministre de la justice muy defaan góor jigéen góor jigéen yi ñu jàppoon Kaolack mu Sidiki Kaba libéré leen ñu jox leen visa ñu génn dëkk bi Macky Sall ci lu tax ma ni dañ gars yi dañu waroon des fois boo souligné yenn points yi gars dañu waroon dem ci dialogue bi gars yi comprennent pas dañuy jàpp ni non kii dafa ku wax rek ñu diaboliser la non kii dafa dem dañu waroon bi gars yi di la saaga ay fekk Khalifa Sall moo dox si maayaanu Sénégalais yi dox si maayaanu waa Pastef yi ku wax waxi dialogue rek ñu indi la problème suuf non ñu ne ñu bëgg trahir bëgg insinuer que que Ousmane Sonko mi ngi nekk di dialogue ak Macky Sall Khalifa Sall di indi idée yooyu noonu te en fait loolu mooy politique bi nga xam moo nekk si ñoom politique pervers bi nekk si ñoom mais en réalité nit loo moom da koy jël doo xaar ñu jox la ko loolu c'est très important lii na ngi seetaan Macky Sall nag Sénégal yëpp a ngi seetaan mu nekk ci temps mel ni ku moom réew mi nekkul président mandaam jeex na mu mel ni muy taxaw di imposer moom si dialogue bi dafa ni day def Macky Sall dafa ni moom day dugal loi amnistie donc kon dialogue moom moom il a déjà ses ses ses mu bëgg def yëpp dugal na ko si dialogue da koy def donc loolu benn blessé rek moo fàtte woon ma dugalaale ko quoi amnistie bi na en réalité euh, foofu laa ci taxaw quoi foofu laa ci taxaw mais may fàttali tuuti rek retracer waat histoire si la moo tax ñoom ñu reporté report élection yi maa ngi koy wax la fa passé m Sall toog mu taxaw Sénégal di ko xool mu ne élection yi dama koy ajandi mel ni koy aj ngénte léegi bi ñu nekkee si kaso bi gars yi ont dit non Karim yéen di ngeen am problème parce que leen libéré mi ngi nii di aj élection yi mooy leen non vous n'avez rien compris boobu ba léegi Sénégal rek lay tooñ ñu ne waaw ma ne mi ngi soo a tooñu àdduna aj élection tubaab bi ñoom seen lépp en politique c'est l'apparence qui compte tubaab bi ñoom lu ñu ànd ànd ak yow am na yoo xam boo ko defee day flagrant loolu dañu ñoom dañuy retiré wu loolu moo ko dal nii léegi nag ñun ñoo war a comprendre fan lañ war a taxaw ci jàkkaarloog Macky Sall parce que dañ ko bàyyi xew mi te reer yi rek a ci des lekk na laax yàqu ko yàq na ci aw yàpp bi añ bi reer yi rek a ci des waaw bu ñu ko bàyyee nag dina yàq affaire yàq réew mi duggoon ci guuta goo xam ne xam fu ñu jëm moom donc comme ñun jàmm la ñuy woote te jàmm la ñu bëggal Sénégal dañuy dem taxaw à ses côtés taxaw parce que munul ñu fexe lu mu woote ñu ñëw taxaw jàkkaarloog moom mais waxul lu ñuy dégg xam ngeen Macky Sall ñun fii mënu kenn man dialogue bi man dañu ma invité wul rek de et puis dama doon soo génn prison mais su ma woon damay dem taxaw ma xam ak wax lu muy dégg loo xam ba àdduna du ko fàtte te jour boobu lay dem yoonam te dañ ko war a taxaw peuple bi yëpp pacifiquement taxaw nekk benn say bu dëgër fexe Macky Sall quitter pouvoir bi avant le 2 jàpp élection présidentielle avant le 2 may wax am na may wax armée sénégalaise armée sénégalaise laay waxal ñoom dañ ne on nous tue mais on ne nous déshonore pour man déshonore weesuwul président boo xam légitimul ngeen mu tokkat avril ngeen défilé si kanamam loolu désordre dëggantaan la parce que Macky Sall délinquant la fi il n'est pas légitime donc kon man dama ni est-ce que armée sénégalaise dinañ nangu les généraux dinañ ko nangu la gendarmerie institution yu mag yooyu noonu est-ce que di ngeen accepter un président qui pas légitime mu toog ngeen di défilé si kanamam lan moo ko fi jar te yéen boobu la yéen a ngi wax ñaan armée sénégalaise mooy armée bi gën a extraordinaire ci yéen a kii kërëb kërëb donc loolu wax boobu noonu loolu ngeen doon wane di ko wane Afrique ba Afrique yëpp respecté leen naka ngeen koy doxalee le 4 avril bii ñuy ñëw naka lay demee parce que kat réew bu jaaxle dafa am ñoo xam ñoo ci war a jël seen responsabilité parce que Macky Sall ko ne ñëpp dégg ko mu ne bu ñu jugul les les autres organisations plus organisées mën na ñëw jël affaire yi donc kon moom mi ngi sot pis clin d'œil armée bi mais réew bi armée armée bi lu mu fi mën a def ak lu mu mën a wax it ñun li ñu gëm mooy on ne nous boobu ñoom nañ ko sàmm quoi ba Macky Sall comme légitimul kenn du tax du toog fenn ñuy def li